dalu leen kay fii lañ koy def toog leen ba taxaw leen ba mu dal leen. non Moussa Thierno

léegi yaa ngi may gis. yow foo taxee tànn la sa bopp wala nga ñaan ñu may laaj nga jàll. caat bi waaye jox naa la ko kay. ma ne ko yow kii de xam naa bu ko ñaanalee ko jox naa la ko de. parce que kan moo ko bett. fii kenn bett fi ba. ay waay Fatou Ngom dina ma daal di man. Thank you.